laaj lu am solo nit boo koy xamle mhm. xamleel fi mbir yi jaar ba yegg ci moom mhm. Mhm. borom njasan bu ñu la nee arab la waaw te mujj ak ñun fii ci senegal kay am na lu ko fi indi mooy li Cheikh al Bekkay laaj ñoom ña nga jóge Makka ak Madinatul Munawwara waaye tey ji kunte yi nii ñu mel fii Sénégal noonu lañ mel Algérie <laughs> moom maam Cheikh Bouna Ama mii di way juru borom Ndiassane nag Algérie la juddoo mu ngi bokk ci parce que xabaayilu kunta moo xabaayilu quraysh ñoo tolloo fukki xabaayil ak ñaar fukki famille ak ñaar mhm. moom nag way juru borom njaasaan mi ngi ci bokk ci famille bu ñuy wax euh, wulaat xamaal ñenn ñaañ leen wuldu bu naama moom foofu noonu la ganee àddina ci Algérie waaye magam ju ñuy wax Cheikh Sidi Muxtaarul Kunti yu moom moo nekkoon fii ci Bulanwaar moom mi ngi euh, gane àddina Bunwaar Bun Bun. Bulanwaar. Bulanwaar fan la nekk mu ngi nekk ci diggante Mauritanie ak Mali. ak Mali ak Mali. waaw foofu la Cheikh Sidi Moukhtarul Kounti yu nekk. Cheikh Sidi Moukhtar nag moom mi ngi gane àddina 1722 génn àddina 1811 kan mooy Cheikh Sidi Moukhtarul Kounti yu moo tax tarixa bi ñu koy tuddee tarixatul Moukhtaariya. kan mooy Cheikh Sidi Muxtaarul Kuntiyu moom mooy sëriñu Cheikh Sidiyal Kabir mi ñuy wax Cheikh Sidiya wulu hayba Cheikh Sidiya moomu moom moo jur baaba baaba moo jur Cheikh Sidiya baaba Cheikh Sidiya baaba moom la Cheikh Ahmadul Bamba fekki woon fële ca gànnaar Cheikh Sidi Muxtaar mooy sëriñu Ousmane Dan Fodio ca Nigéria mm. Cheikh Sidi mooy sëriñu sëriñu sëriñu ñu baax ñu bari mm-hmm. moom nag la maam Cheikh Bun Ama ñëw fekk bi mu ñëwee fekk ko di mbokkam ñëw di tarbiyu ci moom juróom-ñaari at la fa def rek mu yeewi ko ndax mbokkum la laay ca soxnaam la ba ñu defoon ni sax looloo tax boobu am na ñu fa def 40 mhm. am na ñu fa def 30 na ñu fa def lu ko ëpp nit ñi meer ñëw laaj ko ko ni ko yow kii yàggu fi ñun lu tax yeewi woo ñu nga koy yeewi mu ni ngeen baal ma ma tontu leen tontu teggin bi ngeen di ñëw saaku yu deful dara ngeen kii nag maag moomu bokk yëf yi saako bu fees la rek ma ko doon feccali mhm. moo tax bi mu matee foog ma yeewi ko o maam Cheikh bu na ma vingt ans la nekk ku rafet mu dugguloo ko xëlwa mu dugg xëlwa waaye su duggee rek ay xorondom lay gis yu ñuul des fourmis yu yëg ci kaw yaramam mu def ko benn yoon ni ko sama cheikh man de li ma gis doy na waar damay gis rek ay xorondom yu ñuul mu ni ko ah, sama mbokk ci sa mission la bokk sa njëreet ëllëg dañuy ñuul mu ni ko man waaw mu ni ko man maa ngi nii di la xool maa ngi yow ñu bokk der mais nan la sama njëreet di ñuule fan laa gisee kenn ku ñuul ñun rek ñoo fi nekk mu daan ni ko di nga dem bërëb bu ñuy wax sunkaan Sénégal la ci namoon bokk nga ci ñi leen di dimbali ci diine en 1800 lala Aïcha mbokkam ñeewante ko ni ko xale kat soo koy yabal fi bërëb danga ko war a jox lu koy sawarloo mu ni ko waajal naa ko te boroomam waajal na ko maamam yoon ci Yàlla Muhammad waajal nañ ko waa tarixa bi waajal nañ ko ngir mission bi mu war a demee daa di jël ay fas yu rafet jox ko bu jël fas ya mu boole ko taalibeem bu ñuy wax Bilal ak Maatal la ñiy wax ni Bilal ak Maday bi Maday bi la wax moom la ñu yàq tur wa indi ko Sénégal olof daa mën a yàq tur tuddee ko ma dibi Diop mu jël fi soxna am ci Bilal Bilal ju Roqeya Bilal Mubna Bilal Fatma Bilal. Fatma Bilal ci gàttal daal bi mu dee dem la jël yoon wi nag. mu daal di koy defal loolu ñuy tuddee teyul ardi kunte ñu ko mën lañ. nga jëm dakaar yaa ngi Njaasaan. nit ki yor otoom ñëw fekk la fi. <laughs> mag ñi mu wan ko senegal waaye nag mu bañ koo jommal ak ñi mu àndal. nit soo ko jës mhm. ngi mel ni ñu takk say bët nga yeewu gis sa bopp Dakar. buñ la nee nu dakaar mel doo ko xam. il faut ñu delloowaat la nag ginnaaw bi nga xamee ni mën nga loolu nga xàmmee romb naa Thiès romb naa fii fii mooy fii ba agsi parce que noonu la ñuy def nit mu jël nag yoon wi di ñëw di dox ànd ak ñooñu mu àndal ñëw ba place bu ñuy wax Awdash mu daal di fay gis benn nit ku baax gu ñuy wax wuldu sallaaxi moo tax di nga dégg ci kuntey seen xarit nekk waa kër sallaaxi ñu xaritoo ci yàlla nekk ay xarit mu ni ko dama bëgg ñu jàppante te yàlla tax sopp naa la te yàlla tax ki ci des daal ni ko it sopp naa la te yàlla tax mu ni ko si lu may def ci lu baax rek ñoo ciy ànd même bu fekkente ni sa jëmm ñëwul sa ruu dina ñëw foofu la ñu dajaloo ànd sëriñ Buuna way na ko nee na bi mu jógee di dem daje naag waa ju man di leer ju ñu naan Cheikh Sallahi xam na ni moom bu naa ma am na ngëneel maam Sallahi daal di ko ñaan ak xarit ci moom ci lu biir bu naa ma doon xaritam Cheikh Bunaama am na ngëneel ñoom àndandoo di sikkar julli toog fa ñaan rabbana cheikh bunaama tàggu ko dem cheikh bunaama am nanga nga ñuy ñëw nag bi mu jëlee yoon woowu nag ba agsi Rosso Mauritanie laata mu fa àgg ci booru Fuuta fa la dajeeg Malal Demba Tàkko Jabaay mii maam yi gawlo yu nekk fii ci Sénégal gawlo yëpp kooku mooy seen maam mu dajeeg maam Malal maam Malal borom xam-xam la woon xool ko nag maam Cheikh Bunaama neex ko lool mu ne ko naar bi fasante na ak yow kóllëre taxul ñu ànd foofa de mu ñëw nag continuer di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw bi nga xamante ni dugg na Kajoor nag li ko fi war a tax a toog ci la dajeeg buur bu ñuy wax Dameel Amari Ngoone la moom la fekkee jamonoom moom la fekkee jamonoom buur boobu nag mooy sabab bi tax maam Cheikh Bounama toog fi toog fi ndax fas yi la gis mu rafet fas yi mu gis mu rafet ñu tuddee ko fasu naaru góor. bëgg na ci. waaw boobu benn la ci yi. kon fasu naar bu góor bi. ma ngoog fas yu rafet yi naar bi yor. fas yu rafet moo ñu naan fasu naaru góor. parce moo waral fasu <laughs> naaru góor waral fasu naaru góor. mën naa am nag keneen ku wax leneen. Mhm. sama wax jii nag nuroo nag li am. waaw pour histoire dama lay indi li ñu tuddee honnêteté intellectuelle. intellectuelle mhm. waaw ok. fa tabarakallahu bi loolu amee mu gis fas ya dammel soxla ko. Mhm. ni ko dama bëgg fas yi. mu daan ni ko boo ko bëggee kay ma jox la ko mu ni ko waaye da ma koy lebal mu ni ko baax na alquran daf ñoo wax ni bu ñu dee leble nañu wut ay seere te na ñu wut dat boo may fay mu mhm. mhm. ñu def loolu mu ni ko waxtu sàngam danaa la fay ndeke mooy sabab bi war a tax maam Cheikh bu naa ma toog fi mhm. waxtu wa jot mu ñëw di ko fayeeku mu ni ko ah naar bi fas ya kat sànk naa leen te kaf sax la ko doon def ni ko fas ya sànk naa leen mu ni ko ah mu ni ko waaw mu ni ko bi nga mbul bi nga lambay bi nga ndakaaru mu ni ko joxe naa leen te wax dëgg yàlla fi ma toll yoruma njëg maam Cheikh bu naa ma ni ko man it duma ci juwoo ak yow nee ma rek may naa la xàcc nee ma jëndatuma mhm. mu def yëf yi buur daal di ree ni ko waaye naar bi jëndatuma kon xaw ma nooy def ba jot ci sa fas yi ñi mu àndaloon mu daan ni leen gasal leen ma ay gétt ñu gas ay gétt mu ni def leen ci ngooñ mu jël kurusam tasab ñetti per rek fas ya bii daggembul bii làmbaay bii ndakaaru booba ci biir kër gi jigéenu Birima Fatma Cubba ngi fi ñu ñuy wax jooja Mbenda Fall jooju Mbenda nga gis kéemaan googu nag daa di yolleeku ndànk dem ca Birima ni ko sama sama mag gis naa ko xam ni bu la ñaanalee nga moom kajoor mhm. ko kan mu ni ko sama borom kër dafa moon gat waaye gis naa ko mu def kéemaan goo xam ni fexeel mu ñaanal Birima yàlla dugal ci moom diine ci xolam mhm. mu seeti maam Cheikh Bouna Ama ñëw waxtaan ak moom déggal wax bi mu ko wax mu ni ko sunu diine jii ñu nekk de kenn du ci force kenn mhm. waaye ku ko xemmem dees na la xemmem birima mhm. yàlla dugal ci moom liimaan mu sukk ci moom daat ni ko dugg naa ci diine te yow yaay doon suma guide yaay sama sëriñ mu ni ko lu doon say tànk mu ni ko xanaa bëgg moom kajoor mu ni ko gis nga yàlla boo ko lebalee dalay fay lu la jomb mhm. mu ne ko fig ma koy waxee suñu boroom xamal na ma ni ama àpp ba jot na mhm. danaa la jox ñetti firnde mhm. bàyyi nga sa soxna mu nekk jigéen yi wérul mhm. tey dina am doom ci guddi góor lay doon mën nga koy tudde ngelaw lu metti dina am su ngelaw li dalee di nga gis ku war gawar ñëw ni la yow la kajoor di xaar ñett yi mu ko wax yëpp am ci guddi am ci guddi gi biri ma nag daal di ñëw xool ko loola am ndax ci bis boobu la dammeel euh, Amari Ngoone Ndeel génn àddina Mhm. Kajoor ñëw ni Birima yow la ñuy xaar Birima ñëw bi mu defee loolu nag mu muy kéemaan ci la ko Birima nee lu ma lay xor mooy lu ma lay fay maam Cheikh Bouna ma ni ko man de jaboot laa bëgg rek fu sama toog sama njaboot toog jaamu fa yàlla mu daal ni ko tànnal fu la neex ñii nee nañu dafa taal ak daay ni ko fu mu yem yaa ko ñii nee nañu maam Cheikh Bouna Ama dafa ànd ak moom ni ko nañ dem ba ma xool fi ma yàlla yabal booboo gën a wér mu ànd ak moom ñu wari fas di wër di wër ba nu agsi suufu ndànk gi tey mu daal di cof ci suuf si daal ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur mhm. suuf su sell ngi nii te buur bu bari yërmande moo fi nekk mu dogal ko ko en 1800 nii la maam Cheikh Bounama dugg see Sénégal bi mu ñëwee nag mu jël fi soxna jël fi soxna suñuy woowee maam Paye Faye jël fi soxna suñuy woowee maam Coro Diouf waa réew mi la jël jël fi soxna suñuy woowee maam Makoddu Diop waaye jël fi soxna suñuy woowee maam Maroqee Kumba Chérif luy géntam nga aha mu ngokk gént ga ñëw na kon mu war a jaboot mbokk yooyu nag bi nga xamante ni jël na leen mu commencé ce am njaboot mam malal li ko fi indi maam naa ma nekk feek njabootam ba ñu tàggee ko Cheikh Sidi Mokhtar en 1811 11 ans après mu dem nag di ko jaale ji yàggaat fa ci retour bi nag la ko maam malal wax ni man dinaa la topp si ndax danoo ñëw mu àndak moom jóge Fuuta gunge ko ba ndax daan ni ko jaar kër Cherif Mouhamed bun Modaat kër Cherif maam As Aydara mhm. foofu mooy euh, fa Cheikh bu Mouhamed demoon te bàmmeel bay ball ndox te mu ni kër gi ñun bëgguñu karama daan ni na ndox mi arrêté pour wan la jàngale bi ci nekk mhm. biir kër googu mooy kër Muhyiddin Ahmed Bachir Ahmed Bachir sunu porte parole sunu baay ba yàlla na ko yàlla yërëm bàmmeel ba ma nga ca biir kër ga ah. Muhyiddin soxna Fat Diagne foofa mooy këram néega ma ngi nii bàmmeel baa ngi nii foofu mooy kër Chérif borom Ndiassane amoon na fa ay kër danaa la ko wax ci kanam bi mu ñëwee nag la ñu jàdd foofu maam Malal Demba Tàkk ko daat ni ko gis fa soxna su rafet su suñuy waxee Mariam Bintu Moxdaat mu ni ko man de kii sama géer la man alhaaji Omar Fuutiyu Taal mooy sama sëriñ man Malal Demba mhm. waaye kii sama géer la dama laa bëgg may sama doomi géer gi mooy sabab bi tax maam Malal topp si ko maam Cheikh bu naa ma xool ko ni ko kontaan na waaye sa bëgg-bëgg àndul ak dogalu yàlla ak dogalu li nga bëgg mooy nga jël ko may ma ko waaye kii yàlla xamal na ma ni benn doom lay am te góor lay doon man lañ koy tuddee yow ki nga ma bëgg a may yàlla yàlla yaayam la ma yéene mhm. <laughs> daal koy jox maam Rokhaya Kumba Chérif ñu may ko maam Cheikh Bun Ama la mu waxoon am na mu daal di ci am maam Cheikh Albekay am ci maam Mun Munin am ci am di mi des ci pomme de Var bi ci ndar ba tabaarakallaahu léegi nag bi mu ñëwee nag moom la ko maam Malal Demba Tàkko ñëwoon fekk si fii bi Malal ñëwee fekk si ko mam Roqee daal ni ko man daal dama bëgg nga téyel ma fi sama gawlo bi mu ni ko nit de fu mu am soxna dina fa nangoo toog daal di koy yebal ni ko yow da dem sàq sa mbokk nga fa mhm. mu dem sàq dajeeg benn jigéen nuyoog moom mu ni ko noo mu ni ko aatu kura mu wax ko lan mooy càllale mu wax ko fi nuy daje ci mbokk mu daal di ko ni nag nit nitay mbokkam ni bi mu ko taggee seen tagg yooyu mooy baat bi tukkuleur yi faral di wax mhm. bu sa yaay baaxee sa baay baax doom foog mu baax yu ma mojji ba baaba mojji bii gel boneta kooku maam malal moo ko indi mu daal di jël maam Atou Kouré nag am ci benn doom tudde ko maam Cheikh Bunaama muy maam Bunaama Jabaay Bunaama Jabaay te dëkk boobu di ndànk naa pour ma bañ a guddal sanc nañ ko léegi nag waaye ci gàttal maam Cheikh bu Mouhamed Kunta yaayam di maam Makoddu Diop am magam ja maam Khalifa ak Zeynul Abidin la njëkk am teg ci maam Khalifa teg ci cheikh bu Mohamed Kunta cheikh bu Mohamed Kunta nag commencé ca ndànk. waaw fa dem ba sañ ci Ndiassane ma yemandi foofu. ba ngeen balaa moo dem Ndiassane. Mhm. ah nga am noo def ak ñun yaakaar naa ni ah téléspectateurs yi nam mën nañu sikkar ta xam nañu fi nga ci toll ah xam bu nu ñëwee nag Moussa Moussa am na laaj yu mu la wara a laaj te it yaakaar naa ne soxna Awa. Mhm. am na ci wàllu jigéen. Mhm. ci diine. loo xamante ne da